حمد والشكر لمن كل بيسارا لور دون دون سخ كنا سرسارا لو سنائي ورد من بلا صفة مصاد من بني دايمان انصارا لله يقل لدى أبار مكرمة لله لله لله لله كلنا أبا فارق الذنب والشرك وقبل صراع ربي لسي بنت وتركه كلامي ونيتي وفعلي توجهت إلى من كفاني شؤا ودرم شكاء كفاني حفيظ مانع جملة الغداء ولي خاد أحبابا بهم أسر نسكا كتبت وخزدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه أنك الكلي زحزاد أنك أكرمت وفقت الكل يا خير مرسلين akasa loolu rek sedd na xol télé bi mooy tele bi nga xam moo fi nekkal sëñ Touba di Touba Argentine TV nga xam ne lu jëm ci liggéey liggéeyu Serigne Touba bi donc ci lay yëngu Ah, gannaaw it eh, bi ñu la gisee nga dal di yegg si nii fi nga xam ne mooy Argentine ak yoon wi li nga ci jàkkonte lépp wax dëgg yàlla lépp rek umpuñu ah, jóge nga fi ba Nigéria ngir ñëw fii ci dëkk bi mu xawoon na am retard nga delluwaat Sénégal mu xaw a am retard ah, suñ borom dogal ngay door a yegg si ñu di la laaj ana lan nga yëg ci yoon wi ak it bi nga yegg see Argentine fi nga xam ne nee nañ fi la àdduna bi mujj nga fas yéene fee tudd xasiday Serigne Touba ana lan nga yëg si ñàkk. alhamdulilah mina shaytaan rajim wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julit yi bokki taalibe yi rawatina bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen saare di leen sant waaw di nuyu bu baax a baax suñu asan mi ma jox rajo bi di jiital ci nuyu bi nag Serigne Cheikh Matalay Mbacke mu baax mii nga xamante ni moom moo tax ma ñëw fi ndax ñëw gi yëpp moom moo ko sabab ci bëgg ma ñëw ci bisu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke bii muy def ci Mbacke Kajoor sonn ci lool na alalam ak waxtoom ak jotam ak lépp mbàkke mu def ko ci ba mu jeex tàkk jëndi mbàkke gi mu sant taalibe sëñ Touba waaw ndax man euh, wala fi dañuy wax ni ku war gileem ba wàcc ko mhm. loo war a warati mu tuut wala ku war ñaay ba wàcc ko loo war warati day tuuti ak taalibe xam naa ci dara xam naa ko jël sa la ngay am jënde ko ak taalibe xam naa ko yit ko yore di ko di ko wute ak taalube waaye dafa mbàkke gi ak bokk gi ci sëriñ bi yëpp jënd ko ak taalube jënd ko bëgg sëñ tubaa jënd ko jaayanteek xasaa yitu sëñ tubaa yi ñuy yëngu ndax ñun ku ñuy téye rek xasiday sëñ tubaa yi tax nga ñuy téye waaye yoon wi li ma ci yegg asan mooy sant sëñ tubaa dellu koo santaan ngir xam ni moom rek moo mën a liggéeyal ndax bi may ñëw ci yoon wi mhm. laay wàññi naan réew mi ma ñëw de mooy sama juróom-ñaar fukkeelu réew boo xamante ni sëñ Touba yóbbu na ma fa. te du passeport diplomate te ab euh, ay marché yu ay marché yóbbuwu ma fa. jëndi marchandise yóbbu ma fa wuti alal yóbbu ma fa. dul tagg gi may tagg Sayyiduna Muhammad te xasaayidu sëñ Touba yi moo ma yóbbu ci réew yooyu yëpp waaw màkkatal mu karama la ma sëñ Touba jëkk a yóbbu. booba ñaar fukki ak laa am. dem màkkatal mu karam te tukki tukki bu sori ku lay laaj. ku lay wax ku lay jaay tukki bu sori ne ko waa Màkka nuyu nañ la waaye damaa yëgaat ni sëñ Tuubaa boo ko sonnalee mhm. dafa lay fay moo tax te it lu gënul ci yow da koy gënal ba mu gën mu delloo la ko xëy na waaj yi nga xamante ni waajoon nañ ko yëpp di bëgg ñëw mhm. te dajawul dafa tombewul ak dogalu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax jaam bi day bëgg yàlla di dogal te suñu borom dogalam yi war naa war naa war naa dëppoog suñu bëgg-bëgg ñun te man sama bëgg-bëgg léegi dama ko dëppaleeg dogalu suñu borom lu mu dogal ci man neex na ma waaw waaw te it sëñ Tuubaa dafa xoon ni lastu axaafu duro xalixin baax dama fawaltu amriya ilaa rabbi sama bañ a ragal loolu benn mbindeef te fab sa mbir yëpp joyal ko jëme ci suñu borom waaye loolu laa ci jànge dama jànge ni sëñ Tuubaa daal boo ko sonalee da lay da lay da lay noppal da lay wutal fooy dalloo da lay jële Sénégal ah yóbbu la ci barab teg la fa nga noppalu ay fan mu delloo la waaw waaw ci bi daal loolu laa ci jànge ak dikk gi fii bégge ko nag mbégte mu rëy waaw waaw ndax ñëw gun fi ñëw rek doole sëñ Tuubaa lay wone darajey sëñ Tuubaa lay firi darajey xasaay ji lay delloo wone waat bu baax a baax a baax ba xam ne ñun ñii nga xam te ni tekkiwuñ dara tey ak ëllëg waaye tagg gi ñu koy taggal xasaay di jàng gi ñu koy jàngal xasaay di te bind ko ci loxol boppam may nañu daraja ju toll ni ñu xam réew yi xam kilifa yi gën ci àdduna bi ci zahir ak ci baatin am leen ñu ñuy wut teg tekki kon loolu war na noo xam dara jaaja ak dayo ba ak tolluwaay ba waaw kon loolu dañuy jàngalaat sëñ bi xamalaat na ko gën noo bëggaat gën noo fonkaatal lii ñuy def nii ñu gën koo fonkaat ñun ba xam ne li nu am lépp moo nu ko may ni nu mel lépp moo nu ko def moo nu suturaal moo nu baaxal moo nu jubal moo nëbb suñu ayib moo nuy dundal moo nu yor adduna ak àllaaxira suñu gannaaw bakkan bu nu faatoo it xasida yi tax àdduna ak alaxira ci lañ ko yaakaar sa ñàkk euh, xam nañ bu baax sa bëgg sëriñ saaliw yal na sama borom yokki leeram te réew mii di Argentine day réew mu sëriñ saaliw ñaan ndax dañ ko yóbbul keesu daayira mu ne ana ngeen bawoo fu ngeen bàyyeekoo ñu ne ko Argentine mu ne ndax mot ngeen fa mbooloo ñu ne ko déedéet day mbàkke mu ne bu ngeen demee ba mot fa mbooloo yal na leen fa ndimbalal sëriñ Tuubaa fekk yal na leen fa ndimbalal sëñ Tuubaa ba mu ñetti yoon ndimbalal sëñ Tuubaa nag man li ma jàpp weesuut xasida yi sëñ Tuubaa yi nga fiy jàng si dëgg la waa xam nga Serigne Saliou moom ah, ñaanam daawu ko def sax ci ndox wala butéel wala kurus wala ay bayit yu nuy lim. Mhm. da ko daan def ci bëti mbindeef mi ko nuyu rek mu yóbbaale ko fa jëm. wala mu wax ko ci làmmiñam bu tedd wow yàlla barkeel loolu. xëy na loolu moo tax tey jii mbooloo mi fi nekk dem ba ëpp leen doole su ngeen ko bëggoon a lim wala ngeen bëgg ko bañ sax dootul mën a nekk waaw kooku moom waxam. waxam dafa mu a wax ci làmmiñam ma dégg mu ne. Mhm. am na nopp yoo xam ne lu ci tàbbi faju te xam naa ni noppam yàlla rek mbàkke jërëjëfati kon mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan Touba Argentine TV jëmm ji nga xam ne moom ngeen doon xaar depuis boobu ba léegi te dara taxul lu dul Serigne Touba Xaadim Rasul ak xasida yi Serigne Touba yi nga xam ne dëggu gi mu dëggu ak jàng gi muy jàng xasida yi ni mu dëggoo dañ doon foraatu Serigne ak ñu dégg ñu ne bala ngay génn benn réew da ngay dem Makka siyaare ji Seydina Muhammad waaw loolu moom bi ma koy jaayanteeg yàlla suñu borom maa ngi ko jaayanteeg moom ci armeel yi ci barabu sëñ daam Abdourahman ca ndax boobu fekk na nii ma mel ci jamono yii sax ah meluma ko woon ndax boobu mënuma woon a jaxasoo ak sax nit ñi xëy na nag am na ñu ci jàpp ñu bari ñoo xamante ni ñoo fexe ba indi ma ci nit ñi boole ma ak ñoom ba ma mën a booloo ak nit ñi ndax comme da ngay dem ci biir ni ñi faaw nga mën a nag yor comportement boo xam te ni da nga mën a jaxasoo ak nit ñi waaye foofu laa ko jaayante dem ci menn réew hamdu wa shukru li man kulli bi saara luuri dundun suux tinda sar saara luuri sanaa'i wardi bani bilaasikatin ba min bani saara لله كل داء أبار مكرمة لله لله لله لله كل داء أبار مكرمة أسأل في أجم من سارا إن الإسرائيل سارقت خسدوا إن الذين إله سنسارا خان خسدو سنسارا خان خسدو سنسارا خان خسدو سنسارا خان خسدو خسدو سنسارا خان خسدو إن الذين سنسارا خان خسدو شرتي فارخو شارتي فارغو فارغو داريني أبصارا داريني أبصارا داريني أبصارا حمد والشكر لمن كل بيسارا لوري دندن صح تندسر سارا لوسنا إيه وربن بلا سخة مصادر من بني ديمان أنصارا لله يقل لدى أبار مكرمة لله لله لله لله يقل لدى أبار مكرمة أرسل في أجم من سارا ma nga nee sax ah. Barnard.